sey say siñoor sànq di dugg tabletu nen lañ yor ma naan Cheikh Omar xoola bee tabletu nen waaw ah assassiné leen cuuj ju bëri waay fat jotuñu ko toj jotuñu ko toj xanaa kon dañ koy baxal <laughs> jotuñu ko toj wala dañ koy nomlet Fatim moom kay bu ñibbee daañu baxal daañu nomlet arbitre baa ngi leen di fàttali règlement yi CNG yi ah Bour Sine Bour Sine fedee seen jàmm ñaana supporters yi déggu ba ëffalkat yaa ngay yuuxu Fatim. ëffalkat yaa ngay yuuxu Buur Sine bu Bawal. ruumalkat yi seen xol set na Fatim. naa ca Buur Sine Bawal. ah arbitre sifflé na ci diggante Buur Sine ak Ama Junior. Ama Junior féetee seen ndijoor Buur Sine féetee seen càmmoñ fan la ñu lu baax. vingt heures vingt minutes Buur. drapeau son excellence le président de la république. Macky Sall Macky Sall. Macky Koumba Diagne. énergie la. yaa xum ndox la Fatim. yaa xum énergie la Buur. yaa xum ndox la Fatim. ah waay Ndiar Deme waaye sunu baay Xaadim Samb waaye Fatim Cheikh Omar du wat boppam bii Fatim. Cheikh. du wat boppam bii boppam bi mel ni poobaru doom Fatim. Cheikh. ñu ngay xaax. Cheikh amagul eh. waaye ñu cokki cokki bu neex Fatim. mais ama kuy dalul. waa ñu ngi cooki cooki bu neex kam waaw waaw ñu bëgg naa loolu Fatim eh, yow loolu rek nga bëgg man bu da nga maa neexal bés Fatim waaw wax nga dëgg day neexal bés ah gis nga amaa ngi enchaîné lala mu ngi enchaîné eh. xeex ba cooki ba cooki ba ba Fatim ba cooki sene ngi buur a ngi dëggal boppam buur a ngi dëggal boppam doon dóor mu daan doom maa dóor mu daan doom maa kaaw doom Fatim maa kaaw doom maa kaaw doom Buur Sine ngi enchaîné Buur Sine ngi enchaîné Buur Sine eh, eh eh Eumeu Sène guerrier la daan na ko daan na ko Buur Sine était roi Fatim daan na